ndax li ñu sëñ bi waxoon lépp mënuñu koo waxati ndax waxtu wi mbokk yi ko daal déglu it suñ ko déggee te matul ñu jéggal nu ci xam ne ci nun la waaye du sëñ Maxtaar mi ma yónni woon ndax li ma waxoon ma wax ko mat na rafet na ñu ngi sant suñ borom cant koo xam ne gi am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu di jullit di selmal ci yonente bi bu tedd Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëñ bi mu ngi nuyu mbokk fi ñëw yépp góor ak jigéen mag ak ndaw di jiital ci nuyoo bi njabootuk maam Cheikh Mbaye te sëñ Cheikh Aïssa jiite ko sëñ Cheikh Mbaye yebal ko fi xam ne nii kóllëre gi doxoon ak maam Cheikh ak sëñ Ahmad Saxir maam Cheikh Mbay mooy sëriñu Cheikh Ahmad Saxir mooy ki ko orienté it mu dem jàngi bi mu jàngee alxuraan ba noppi bi muy dem ci maam Cheikh Mbay di ko nuyu fekk ne bind na alxuraan bindati ko bindati ko ba mu mën ko lool waaye wàllu xam-xam des na mooy ki ko orienté ba mu tax mu sàkk jàng mu jàng ji xam-xam ba mu jàngee xam-xam ba ñëwit mooy ki ko yebal ne ma ko jëwal kokki demal kokki su ñëw ku ñëw nga jàngal ko ngir yàlla jox ko ak njabootam tamit yebal fi bàyyi saab yebal fi bàyyi jiili yebal fi sëñ Abdou Salaam Mbay ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci ay taalibeem kon sëñ Cheikh nuyul nu sëñ Cheikh lu bari te santal nu ko gërëmal nu ko réew yépp nag jóge ci ay gox yu fosanti ko moo xam ñu jóge njàmbur bawal kajoor saalum Casamance Gambi Mali Ganjool Jolof ñëpp gok yëpp fu nekk jóge na fa ñu jóge Gambi ñu jóge euh, euh, haute ñu jóge Gonak Guinée Conakry ak ñu jóge Mali di leen leeral ne def ngir yàlla rek mooy li am solo def ngir yàlla rek mooy li am solo dégg ngeen suñ doom ji fi doon wax léegi doon fi lakk ay saraxule bokk ci waa Mali fi jànge woon sëñ ma saxir day xamul ndeyam xamul baayam sëñ Maxtaar xamul ndeyam xamul baayam dañ ko fi indi woon mu dikk jàng si ngir yàlla sëñ ma saxir yor ko jàngal ko ngir yàlla moom moomu ak mbokki maliyam yi loo xam ne nii la loo xam daara gi danañ ko jëfandikoo par 30 tonnes 40 tonnes la ñuy indi ci loolu waaye restaurant booy ñuy tabaxal xale yi moom daa yore day daa yore ak usine peinture bu njëkk ba cent si wala joxe woon bi barku démb yi ma ngi ñoom waa malien yi ci mu ànd ak ñoom deux cent si way peinture lañ joxe ci ne nañ ko defe ci nañ ko joxe ci restaurant bokkut ak bale yu ñu jëfandikoo brouette yu ñu jëfandikoo ak yeneen ak yeneen ak yeneen lu am lu nekk rek ci ñoom waa Mali yooyu lay jóge kon loolu fokk danaa ko de kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant tamit suñ mbokki bari ñi nga xam ñoom ak ñoom ñoo bokk ndey ak baay ndax sëñ ma saxir ba muy séq ak baay tamsiir ñoom ñaar kenn amu ci woon kër te këllëre googu këllëre googu moo andi lii fi am lépp bañ séq ko suñ digganteeg waa Bargny kon ña ngi rafetlu seen seen taxawaay sëñ Ablaay nga jottali sëñ mag ja ak waa Bargny yëpp ne sëñ bi ma ngi leen di sant ma ngi leen di gërëm ma ngi waat këllëre googu nga xam ne nii moo taxoon su diggante yéen moo taxoon seen digganteeg sëñ ma saxir te te ngeen dundal ko taxawal ko dundal ko di sant tamit di gërëm ñoo xam ne bàyyi Alaaji Mbay Gay te yàlla na gudd fan ci jamono ju metti jamono jafe jamono ju naqari jamono ju xaalis jafe jamono ju alal jafe ay baay ñoo jóg di dajale alal di andi di dundal xale yi di dundal donga yi di defaraat daara yi te ci jiitu mooy suñu baay Alaaji Maxari Gay suñu bàyyi Alaaji Bakari Gueye mooy ki ci jiitu dañ koy ñaanal gudd fan dañ koy ñaanal tabbi ajjana ak mucc sawara di ñaanal ak njabootam gudd fan daara ci fi tabaxu ci réew mi daara ci fi tabaxu dama ne Alaaji Bakari yan nañu ko yàlla fayal àndoon ak suñu bàyyi ba Alaaji Aatu Xule Alaaji Madawas Diop Alaaji Ndiass Amar Alaaji Modou Sadi Alaaji Cheikh Diop Thilmakha suñu najaay Alaaji Moussa Sane ba Sylla ca Louga bàyyi Alaaji Géey sëñ Morloo Caaroy ak Alaaji Modou Géey ak ah, sëñ Dame Seck ak Alaaji Baara Mbuub ak ak soxna Fatou Fall Ndiaga Assane ak bàyyi Moustapha ci Caameen ak bàyyi Tamsir Diouf ak njabootam ak njabootug ñoom rek gépp ak njabootug Bargny gépp ñooñu ñoo jàpp daara daara ji bi ci kenn dugalul loxoom kon ñanuñ leen yàlla fayal sant tamit waa kokki ak lu aju ci kokki sëñ ma saxiir dëkkul fii Louga la dëkk ñu yebal ko fii xamul fi kenn bàyyi ma Demba Diop ak njabootam ñu ci jotaay bi yal na yàlla defal ko bu xaar ko àjjana moo ay mbokkam yépp moo ko jox fii daara ji nekk moo ko ko jox moo ko jox sëñ ma saxiir ànd ak waa kokki suñ leen tuddee suñ tuddee sëñ xabaan tudd nañ ñëpp ñoom ñoo taxawaay taxawaay boo xam ne bii la waa Madina waa ansaar yi taxawaay bañ taxawoon waa kokk ñoo ko taxawee ci daara ji ñoom ñoo jàppale daara ji ñoo dimbali daara ji ñoo wéttali daara ji ñoo yaatal daara ji ëllëg suñ borom la muy fayee waa Madina ñu dimbali woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal na waa kokki am wàccuwaay boobu ëllëg yowmal xiyaam ak li ko wër lépp di leen xamal ne nag nun ñëpp day am nañ aw sas nun ñëpp am nañ aw sas waaye nag njabootug daaray kokki ñoo ci raw ndax sëñ ma saxir men mel na moom moo yan woon yan bi 1939 ba 30 mars 88 mu yet bu diis bu metti bu jafe bu bari ay problème bu bari ay jafe-jafe bu bari ay nattu bu bari ay fitna mu yanu ko muñ ko nangu ko yoru ko te geestuwul xooliwul gis bañ du mbub mu bëgg du dàll yu mu bëgg du kër gu mu bëgg du leneen lu mu bëgg li mu bëgg mooy daara ji daara ji rek na dox ñu xam ne daara ji mel nii de daa am ay étape ay jaar-jaar yu mu jàll jaar bi muy doog a dikk jarbaatam la àndaloon kuñ naan Baraama Géey yàggul dara mu génn àddina njaboot gi tamit génn fii ci ay kàmb yu nekkoon fii ci wetu mbànd surga mu taw ba tooy ba ta mu taw ba taafa ñu xale di fa ab lim faatu jox bëkkuwut daara ji lakk gi mu lakk ak ay jafe-jafeñ dund amul leneen amul te lii may wax nii am na samay mag mbaasug Moussa Cissé gi ak moo ta ante ñoom ñii xam nañ li may wax akkoon nañ ci foo xam ne añ day jot ñu tibb tibbub sax-sax rek mooy gerte sax-sax rek xale yi ren kenn ku nekk jox la nga dem wala ay doomi supp ko macc nga dem añ tamit moom dong moo daan am loolu man fekk naa ko teñ cal sëb ñu xonk curru lay doon xor dara du ko dégg lu dul xorom ak ndox kese añ rek lay doon te danga naan ko siiw ànd ak yeneen jafe-jafe yi ànd ak ànd ak yëpp waaye sëñ ma saxiir loolu mus ta tax mu yox yoxi mus ta tax mu dellu ko naaw mus ta tax mu def leneen loolu daa dolli ak ngëmam daa dolli ak ngëmam daa dolli ak gën a wóolam suñ borom ndax lu ci mën ci am daraan ba ci atam yu mujj yi atam yu at mi mu génn àddina mën ci ay jafe-jafe am na suñ mbokk ñu suñ mbokk yi setti jaay waa kër sëñ jibi jaay yi pete war dañ fee ñëw seen ñu yónni leen xawma kan la ci ñooma ci xalifa bi seen xalifa yi sama baay day nee day tabax jàkka waaye damaa yebaloon ci yow ma ñëw di sàkku ci yow ndimbal muy bisub alxemes sëñ ma saxiir fekk ko ak benn dërëm mu metti ko lool toog naa moom répété na ko lu ëpp ñaar fukki yoon sëñ bi damaa sant jaxate de waaye soo demee nga ne sa bàyyi day fàtte mu ko waaye fi mu toll fi te boobu benn dërëm bu ko jox benn dërëm bu mu ko jox atam yu mujj am na at moo xam ne nii weeru tabaski daa tero amul am tabaski sëñ Moxtaar de quoi ah, mbir mi ne doy na waar mu ne ku ah, li ma ci xam daal mooy leen am na saxir dey du ko lebi du ko ñaani du ko wuti du ko sàkku ji ci kenn su ma ko yàlla joxee ma jël su ma ko yàlla joxul ma jéeg kom ñëpp kon nag kon nag lii ci mbir la ci seen tey dafa jaatu suñu dajee ñu di ko fàttalante surtout njaboot gi ñu xam ngir kenn ku nekk gën a takkuwaat gën a góorgóorlu gën a taxaw te su fekkee tañ ci roy sëñ maxtaar mii la ñuy roy lim nangul sëñ ma saxiir ak lim ko defal kenn defu ko kenn defalu ko du man du sama borom du kenn bu kenn dóor dënnam kenn kenn ci ñun def ko lim ko déggal kenn ci ñun def ko 1957 58 sëñ maxtaar mii am na bourse war a jàngi Maroc booba daara yow nga dugg saxaar dem Louga rek programme la mu war dem Maroc war a jàng boobu ak bokk na ci am ñu bokkoon ñu waroon àndal sëñ Maodo si moom sëñ Abdou Aziz mi ay maxta sëñ Maxtaar Sànqe ñooñu la waroon dem jàngi Maroc fas bañ demee ba ba guddi jot nga ne booba da ngay dugg ci saxaar demaat lu ko duggaat saxaar dem dem doog a doog a dem Dakar bañ xëyee suba mu war a tàggu ci guddi gi la sëñ ma saxir fekk fi muy tëdd di nelaw mu yee ko da ko jógal mu jóg mu toog moom ne ko toogal ñi dem duñ la tane passeport du man du doom du rakk du soxna du karit kenn tëgaat ko bët kon nag nun ñëpp su fekkee ne bëgg nañ te dañuy wax muy dëkk ci nun dañoo war a joxe suñ bakkan dañoo war a joxe suñ alal dañoo war a joxe suñ njaboot dañoo war a joxe suñ lépp sëñ ma sax yi dañ noonu la defoon sëñ maxtaar mii noonu la def dañoo war a joxe suñ alal dañoo war a joxe suñ bakkan dañoo war a joxe suñ njaboot dañu war a joxe suñ lépp kon loolu maa ngi ciy ñaax sama bopp di ci ñaax ak xale yépp ma di leen xamal ne Alioune yéen a may dégg yéen a may dégg Baye Modou Diop Baye Modou Lo Oustaz yéen a may dégg daara ji ajuwul ci mbokk ajuwul ci deret ajuwul ci bokk ajuwul ci lenn maanaam sëñ Massa na amul mbokk amul lenn kenn ku nekk mbir mi daal daa mel ne ak diw noo ci rëbësoo rek noon nga ciy taqe noo ci rëbësoo rek mën nga ci taqe kon saa bopp laa koy tàmbalee nañ yokk ko góorgóor dañ yokk ko taxaw liggéey bi nanu jaral nañu jaral lépp te li ñuy ñaan mbooloo mi ñu ñaanal nu ko mooy ne li ñu leen di ñaan mooy ne lépp loo xam suñ ko amee ah fàllu de moom lépp loo xam su ko amee muy doom wala muy soxna wala muy alal wala muy daraja te tax ma nar a doy gën gannaaw liggéey bi day yàlla bu ma kaw lii man laay xëcc sama bopp di leen di santaat di gërëm di ñaanal njabootu sëñ ma saxiir gi mooy ñu toog ci daara ji di jàngale tud ñëpp tudd naa leen Cheikh Ibrahim Mohamed Fadel Kebe Mohamed Fadel Cissé ñëpp Bachir Diakhaté Sidna Diop nii rek la nii rek la du leneen ku leen wax leneen la wax leen dëgg nii rek la xam na ay soldaar la ñu nekk ci bitti di taxaw daara ji di doomi daara ji di njabootu sëñ ma saxiir te daara jar leen lépp muy alaaji abdal silla mii di def alalam guddi ak bëccëg ci daara lu kenn yëg ak lu kenn yëgul gasal na daara ji barki démb ab forage fii ci ndàll ngir wut nag mu neex forage bu bënn na ñu ngi defar satado bi amul kenn ci nun ko xam ñaata million la ci def da koy def ngir yàlla ak ñeneen ñu mel na moom sëriñ buub wax wax nañ leen allah aas naw ma ne sëñ ma sax yi da ko waroon aas dellul nga yor yori say mbokk waaye yor nañ mbokkam ba yoraa la ñu noonu du leen ko wax weer wu nekk ba mu ko bindoo daaw ba léegi weer wu nekk quarante cinq tonnes ceeb yi day ñëw dañ leen dañ leen di tuddal ñooñu du jaagee ni leen wala ndaboo leen waaye dañoo bëgg ngeen ñaan leen yàlla surtout yéen waajur yi ngeen xam ne am na ñu taxaw di leen jàppale di jàppale njaboot gi fi nekk ba tax njàng mi ak njàng la mi mën a sotti te ñooñu kenn jiitu leen ci ak it ku mel ne suñu doom daamloo ak njabootu sëñ war gépp ak ñëpp nag daara ji ma ngi tabax ab añukaay ak reerukaay boo xam ne bi ab restaurant la ñu fi jëkk jàgge demoon Madina mu muy yi ñoom ak keebaa ñoom ba ñëwee ña jëkk ñëw vacance ak mu saawoyal ñoom ñe jëkk dikk sëñ bi dana laaj nan ngeen di añe ca Madina fa ngeen nekk ci université ba ñu ne ko foofu la fa nekk mooy ne dafa am barab bu ñu naan mataam ab restaurant su añ jotee dañuy dugg añ waxtu sangam lay ubbi ba waxtu mu ne day loolu ko xanaa ku ko amoon fii dana baax loolu moo tax bi mbas mi dikkee te metti teñ xale yi kenn dematul fenn ci la xalaat boobu génn ñu di ko defar ni ci sant njaboot gi ci def seen alal yëpp alaaji Ablaye Dia alaaji Moustapha Ndiaye ak ngeen àndal sëñ Basiru sëñ Basiru Mbàkke mais suñu xarit suñu wëllëre di kenn ci njabootu daara ji lañ joxoon yaakaar naa lan la doon cent quarante millions cent cinquante millions lañ joxe woon nan ko def suñ suñ doom ji daam loo mi mooy ndax ñaani leen ko yàlla gudd fan ak wér bi plan bi koy defar architecte bi maa ngi fi indi architecte architecte bi yaakaar naa ma ya ma ngi nuyu woon na fi maa ngi def bàyyi fi architecte bi waaye tamit lépp lu jëm ci main d'œuvre maa koy fay daara ji defu ci benn dërëm benn dërëm te lu lumu gàtt gàtt waaw te lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt lu mu gàtt gàtt quatre cent millions jëm cinq cent millions dana ko fay te ma ngi fay bokk te matériel bi jënd waaye sant nañ ci yàlla liggéey ba ba fi may wax taxawul te amul benn dërëm bu jóge bitim réew bu ci nekk sëñ ma sax yi la mu man li may jariñ ci réew mi laa koy amee loolu gëm nañ ko ndax dund nañ ko amul benn dërëm bu jóge bitim réew benn dërëm benn dërëm lépp ci biir réew mi kon loolu dañ ciy sant yàlla bu baax di ñaanal képp ku ci def sa dërëm luy sa aajo àdduna ak àllaaxira yal na la ko yàlla fajal Abdou Aziz la nga ci defoon gis nañ ko ñeneen lañ ci defoon gis nañ ko galet loo li nga ci defoon gis nañ ko cent tonnes nga tàmbalee woon mu jeex nga defaat cent mu jeexaat nga xaccaat mu jeexaat nga xaccaat kon yàlla boo taxil koog teraanga yow it waaye nañ xam ne Luqmaan day am na lu mu waxoon doomam dénkaat jëm ko doon dénk dana ko woon ngallalaay luq maa ngi lay dénk alali keneen bu mu la gënal sa alal mu ne ko bàyyi lan mooy sama alal fi mooy li nga dawal def ko ci aw yu lan mooy alal keneen mu ne ko mooy li nga fi baax kon nag maa ngi xëccaat ñot sa bopp woo saa bopp di woo ñëpp as li ngay woote day mat de day mat as li ngay woote day mat day mat day mat day mat de day mat alxuraan garab la koo xam ne gi ukluha daa'imun wa zilluha meññatam du lekk waxtu wenn waxtu du ñàkk ker wenn waxtu du ñàkk ker wenn waxtu kon yal na yàlla àggale ñëpp ña ngi sant ñëpp ña ngi gërëm ñëpp li ma sëñ bi waxoon gën naa gudd li gën naa jotal lii waaye maa ngi sàkku ci yéen yéen ñëpp comme ni ko Mouhamed baare nañ waxee woon di di nuyu tamit suñ mbokk daara yi ñu yore ay daara mbootaay yi wax ci daara yéenay suñuy mbokk yéenay suñuy xarit yéenay suñuy wëlëre yéenay suñuy lépp ñu ngi leen di sant di leen di ñaanaat li nga xam ne moom la Mouhamed Amine Baara ñoom ñaanoon sëñ Makhtar ña ngi ñaan mbooloom bi ak fu waay mënti nekk na wax na sëñ Makhtar yàlla na gudd fan te ànd ko wér. amiin yàlla na gudd fan te ànd ko wér. amiin yàlla na gudd fan te ànd ko wér yàlla na gudd fan te ànd ko wér. jërëjëf waaw di di di sant tamit ngeen jégal ma soxna Baali Mbakke soxna Baali moom sëñ Muntaxa jamono ju nekk day yónni sëñ Basiiru mi ak sëñ Seexloo Jóob ñuy indi ay teranga yoo xam ne ci ay ceebak ay diw ay nangamak nangam loolu it dana jaadu su mbooloo mi teewee ñu wax leen ko ngir ñu sant ko ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér Cheikh Bassirou jërëjëfati waaw as ndaw daa wax ne naa wax ca kaw ne sëriñ boobu li mu waxoon ne dana ma ko jox muy 500000 joxe na ko kon ñaari 500000 mu ngi foofu léegi tey mu mat incha allah.